jàngoro ji day ay waajuram nag daal dinañ koy waajal de lool bàjjana waajal na ko de ubbil enquête yéene kaay nañu nag adduna wër ngeen képp gépp seen bopp kon daa ubbi nag la wax dëgg la xoola ca diwaanu Malika gee dama ne la tailleur ya de ñooy defar ay mas laa ilaaha illallaah ngir bërëbu fajukaay ya police ba ak askan wa ca boppam Assome Diatta ministre commerce wa moom daal fi mu nekk nii ay jafe-jafem de mooy fan lay jëlee ay gants ay masque ak ay thermoflash dëgg xoola xam ne ay docteur la ñu waaw Ghebreyesus Laos nee na adduna bi ci boppam day fi mu nekk ni la xam nga lan la manqué ay jumtukaay yu ñu fàggandikoo dëgg la 24 heures yéene kaay ne guddi gu bët setagul de ca la ñu ne incertitude dëgg sax wàllum càggante ñàkk tamit ay jumtukaay waaw waaye itam ñi nga xam ne dañoo dëgg feebar bi te xamuñ fan lañ ko jëlee de professeur Coumba Kane ah. nee na bi nag fi mu nekk ni ñëpp a war a tiit nag laa la wax dëgg la Dakar Times de waaw daal dina ñuy yeggee fan la ñu jàngoro ji la nar a yóbbu maar di tali waaw critique yéene kaay ci dëkk bi de dëgg la waaye nag am na kenn ko boo xam ne dee na ca bitim réew ñu ngi koy indi laay lay la la kii nag mooy sénégalais bu njëkk boo xam ni jàngoroy coronavirus kii da koo daal di rey anta ndooy lay wuyoo ca Espagne la ne de waaw te gis ngeen Espagne googee waaw lu tolloo juróomi junni ci ay doomu aadama coronavirus ci rey na leen allahu akbar la ilaha illallah fii ci Sénégal day daana bëccëg bu ne ay fukk la feebar bi daaneel fi mu nekk ni la ñu ngi ci téeméer ak juróom fukk ak juróom na ci ñëpp di xooli seen bopp looloy dëgg professeur Moussa Seydi ci réew mi quotidien waaw ne biir kër yi tëj leen confinement total professeur Seydi ci bëgg suba bi li yemu na fii fukki fan juróom dee bu amulee soppeeku rek ñu tëj nit ñi confinement général nag laa la wax maa la ko wax te mbir mi bu continuer nii dee ca musiba mbaa baku mbëkkoon la jëm nag laa la wax loo ëpp juróom fukk ci ñoo xam ne jàngoro ji dane daaneel dee da ca jam ñaa jow léegi ko yéene ne waaye ñoo ñee nga xam ne dañoo feebar dee nañ leen di toppatoo bul te ca duñ ko tàngal sax noonu nag lañ leen koy joxee te balaa ñu leen koy jox xiif di leen bëgg a rey waa kër docteur ngir ñu jot leen ci numéro yi nga xam ne kon moom la ñu doom bu góor la am na kenn ku feebar bu koo xam ne tey nee man daal damaa yaakaar ne waa kër docteur dañ ñoo ragal xanaa keneen koo xam ne daa feebar tey waaw nee boo leen gisee Sénégal kenn deewagu fi ba léegi ni lée nekkul ne suñ docteur yi ñoo ay dee téetéet yàlla yàlla rek bokk na ca Moustapha Guirassy alhamdulilahi rabil alamin dama ne la Moustapha Guirassy kon wér na ba ñibbi këram sur saane diwaanu Diourbel Kédougou ak Fatick waaw daa am koo xam ne kon daa am jàngoroy coronavirus gi dee ku nekkoon koy buux sa naan ko bëgguma gouverneur Fatick dee waaw Seynabou Gueye ah nee na région Fatick amagul kenn koo xam ne kon jàngoro joojee daal dina lay dugg ñi fi defalagum a dugg te xamuñu fan lañ na ñaar fukki ñoo xam ne kon jàngoro kon dugg leen allahu bar ci ñaari fan rek nag ñaari sénégalais yoo xam ne kon nañ leen koo wàll dee mujj nañoo dee ca bitim réew inna lillahi wa inna ilayhi rajiun l'observateur ne ndaw si la ay tandooy waaw tey la résultat yi di génn de ñu xool ba xam jàngoro jee ko rey waaw wala déet en tout cas ni jàngoro ji tasaaroo ci biir mi day borom xam-xam waaw nee nañu bu yeboo ñu waajal suñu bopp musiba mbaa ba kumbari yow ci fukki fan li de daal di nay bind assemblée nationale projet de loi ba de may ko kattan nag mu jiite réew mi le ci wàllum ordonnance ma nga ca taabalu Moustapha Niass ba mété élection yéene kaa gi day waaw daal di nay génnee lu tolloog téeméer ak juróom fukk ci ay millions cent cinquante millions ngir askanam woowee Barthélémy Dias yemu ca ndaxte nee na fii ak juróom benn weer salaire du ko jël askan wa rek waaye Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye ak mi mi dana déedéet parce que layus lat fala waa ji dee lu tolloo genn wàllu milliard cinq cent la waa ji génnee les ciment allahu akbar secteur privé bi yëpp boo dajalee lu ñu joxe quatre cent cinquante millions ëppale yéeni kaa gi ne Baba Ngom Sedima tamit de téeméeri millions la joxe cent allahu akbar grand place de waa Sokosim de joxe nañu kon ñaari téeméer ak juróom fukk ay millions deux ah, kon lañ joxe ñëw ñes direct news de ne lieutenant Alaaji Malick Niang policier la moom lañ def nag citoyen modèle africain ñuy wax naan policier pëyam déedéet Alaaji Malick Niang lieutenant de am na ndam Chérif Habib Aïdara ci tribune yéene kaay waaw nee na njiital ONU di Antonio Guterres waaw li mu wax ne ay millions africain dananu dee ba noppi nag jëfandikoo le mot nécessairement mel ni dégg farata la wala lu neex war na cee indi ay gindi di ay explication libération yéene kaay ne faux médecin tey foo docteur Samba mi le enquête bi def ci moom doy ndeke da def sax ay moom coronavirus coronavirus yoo jee terminé yéene kaay nee ndimbal li nga xam ne kon gouvernement bi da koo fa séene indi na ca mbir ma waaw attention de ñi nga xam ne ay tan lañu lu génn lekk maire yaa ngi ne Alioune Sall jiite ñoom it ña laaj seen wàll yéene kaay gi ne attention au prédateur ay waay lekk gi jox leen ko ñi ko yeyool direct news de waa ginnaaw ko yulli def ko ne daar daar urgence koppar gi ñuy dajale na xaalis bi génn waa bale bale présidence de la république assemblée nationale au conseil conseil économique nañu génnee ci seeni caisse noire yooyu opposition bi nga xam ne tamit bu ñu jëmee ci ay élection ñu génnee ay milliards yi di ko ca def waaw te ba léegi mille francs nag benn opposant génnee ko ngir sauver réew mi ana ngeen <laughs> Sénégal day wax ak réunion lañ gën a mën a jëf ak joxe boo paree mën na la tëjal